mbokku téléspectateur yu 2STV mbégte la ñuy am saa su ne di jàkkaarloo ak yéen ci seen émission marmite du cœur xeex bi ñeel coronavirus dañ koy wëyal waa marmite du cœur di ci bay seen waar bu baax baax waaye nag wéetuñu ci benn yoon saa yu ñu gestoo dañuy gis seen i partenaires historiques di ñi nga xamante ni daanaka bi mbir mi dooree ba léegi ñoom la ñuy àndal di waa orange ñoom it fépp fu ñu dugg rek dañuy ànd ak ñoom action yi nga xamante ni dañu koy mëne dañu koy mënendoo ensemble de concert fépp fu ñu dugg euh, daal di def kon li nga xamante ne moom mooy sensibilisation bi duñu ci yam dañuy édition te lu ñu mel dañ ko fas yéene continuer ci banlieue bu Dakar dañoo fas yéene dem fi nga xam ne moom mooy kon ca Géejawaay def lu ñu mel lenn rek la ñu ci jublu mooy jëlee fi coronavirus waaye laata ñuy dem eh, ci terrain bi dañuy sekk waxtaan ak ki nga xamante moom la dénk wàllum RSE ci Orange di madame Rokhaya Solange Ndir lépp rek jëm ci sensibilisation bi kon Rokhaya eh, ban bilan eh, ngay def une semaine après le démarrage du Ramadan ci combat bi nga xamante ni daan ngeen koy mëne ak waa Marmite du Cœur. voilà sama maa Euh, ni nga ko waxee une semaine ngi nii ñu tàmmale Mamies du Cœur nouvelle version maanaam euh, mas bi tax na ba nga xam ne ndog yu ñu doon def tey dañ ko soppi def ko ay ndimbal yu ñuy yóbbu ñi nga xam ne dañu néew doole pour le moment kontaan nañ ci torop euh, gis nañ ni vraiment loo xam ne nit yi dañ ko doon xaar maanaam fépp fu ñu jaar nee nañu wax dëgg kontaan nañ tàggal leen leen torop ndax mas bi foogoon nañ duñ leen gis Euh, kontaan nañ torop ci li nga xam ne ndimbal mi nga xam ne yéen koy indi loolu nag duñ ne guléet ndax fukki at ak benn ngi nii Orange mi ngi ànd ak Alassane ak Moustapha nga xam ne ñi ngi def concept bi dara taxu leen jóg lu dul dimbali askan bi Sonatel nag ci mbirum responsabilité sociétal d'entreprise parce que bi ngi tàmbalee ba léegi ñi ngi gunge état bi déjà am na benn euh, plateau médical boo xam ne tabax nañ ko plateau médical bi équipé nañ ko tamit Euh, waaye yemuñu foofu lépp loo xam ne tey ministère de la santé mun nañ ko ci jàppale ci wàllum communication ay SMS yoo xam ne mun nañ ko yónnee suñu abonné yi ay euh, ay forfait yoo xam ne soxla nañ ko euh, ñu ngi ciy góorgóorlu jàppale leen ko ci ministère de l'économie numérique tamit nga xam ne mooy suñu ministère de tutelle jàppale nañ ko Sonatel def na tamit benn contribution de plus de 200 millions ci li ñu wax fonds force Covid 19. loolu dafa war ni suñu. suñu entreprise lépp euh, lu responsabilité sociale d'entreprise dimbale askan bi jàppale état bi gunge ko tamit def ñu soxal moo tax kontaan nañ torop ci campagne bi bi nga xam ne dina déroulé wu tout le mois de Ramadan te dinañ ci def suñu kéemtalaay kattan incha allah. merci beaucoup euh, madame euh, Rokhaya Solange Ndir kon gis ngeen kàddu yi nga xamante ni na koy yëkkati mu mel ni euh, orange kenn demul mu des ci action yi nga xamante ni ñu ngi koy kon séntu fu nekk ci réew mi lépp rek jëm ci combat contre le coronavirus kon dañuy ànd léegi-léegi ànd ak moom Rokhaya Solange Ndir mi nga xam ni moom la ñu dénk mbirum RSE ci orange ñu daal di dugg ca Géejawaay dem ci daara yi dugg ci biir askan wi def fa ay action léegi-léegi taseeg si mbedd bi merci beaucoup donc gis nga lii mooy euh, la participation de la marmite du cœur ku ci nekk ak volet bi nga xamante ni moom nga daal di gérer gis ngeen ñi ñooy kon les soldats du cœur ni mu ko yàgg a tuddee ñoom it chaque fois ñu ciy def liggéey bu ama am solo kon mbokk yi lii mooy étape bi ñu leen jagleeloon tey ci seen 100 pour cent sensibilisation 100 pour cent distribution de vivres dig suba incha ci beneen numéro 100 pour cent sensibilisation restons chez nous bu ngeen amul farata bu ngeen di dox ngeen la toog leen seen kontaan nañu bu baax a baax a baax ci liggéey bi nga xamante ne yéen a koy liggéey vraiment vous êtes constant ren nag formule bi moo ko laaj ngeen di yëkkati dund yu am solo ceeb diwlin di ko yóbbul daara yi di ko yóbbul kër yi nga xamante ni ay famille yu ko soxla la vraiment vraiment vraiment ci liggéey bu baax a baax. Alassane Mouhamadou Moustapha gis nañu li nga xamante ni yéen a koy liggéey nii rek la lii ngeen def nii. depuis une décennie ngeen nekk ci lii def dëgg yàlla ñëpp ñoo ciy roy waaye Sénégal yëpp daanaka ñu ngi koy roy maa ngi xaar nag seen invitation parce que bëgg naa ñëw itam gën a jàpp ci liggéey bi yal nañu yàlla defal jàmm merci beaucoup Mame Abdou Diouf jërëjëf yaa hayyu yaa qayyum bi rahmatika nastaxiin najjinaa min maradi corona bi jaahi sayyidina sallallahu alayhi wa sallam yaa hayyu yaa qayyum bi rahmatika nastaxiin najjinaa min maradi corona bi jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa برحمتك نستغيث نجينا من مرض كورونا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.